asalaamaaleykum euh, li may wax na mën na gàtt euh, gàttaay bi yëpp moo di ne Abdourahmane Camara ku dëggu la woon dund naa ak moom lu mat euh, fanweeri at ba ñuy dem université di fa ànd 1980 la 1980 ba léegi xëy na yàgg na Abdourahmane Camara ku dëggu la woon Abdourahmane Camara ku gëmoon liggéeyam la defoon ci pas-pas boo xam ne daf ñu daan jaaxal sax ñun ñuy liggéey ak moom Abdourahmane Camara booy seet itam dëggu pas-pas ci liggéey kóllëre itam la ko bàyyi wal fajri kóllëre kese ma ko bàyyi wal fajri mm. et xëy na ñun ñëpp jaar nañ wal faj fajri ñun ñëpp xëy na jóge nañ wal fajri waaye moom moo des ak wal fajri moo des ak Sidi Lamine Niass euh, booy seet itam Abdourahmane Camara booy waxtaan ak waa njabootam dama ñëw këram kër këram keroog di waxtaan ak ñoom li ñu lay wax ci Abdourahmane Camara da nga ko daan gis ci moom wal fajri du woon ñaari nit benn nit la woon mm-hmm. na mu daan mer biir këram noonu la daan mer biir wal fajri maanaam wal fajri bu ni mu fa nekkee woon mooy yaatu mooy suufeel boppam mooy gëm liggéeyam bëgg liggéeyam Euh, daan nañ liggéey ba nga xam ne Abdourahmane Kama daf lay réer ci dëkk bi waaye bu demee ba dellu rek lépp lu ñu daan liggéey daf ko daan tënk indil ñu ko teg ko nga xam ne li muy liggéey liggéey bu rafet la euh, wax ji nag du imam xëy na loolu rek laa ci mën a wax incha jërëjëf merci jërëjëf.